suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam yi doon jar ko am. seen YouTube bu bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. mënuñu sax suñuy kilifa toog ñuy wax ngir maanaam ci ak yàlla Baye Fall nag moom. daa jàngale lu bari tey daa war a jàngale it lu bari comme na ko maam Cheikh Fall defee woon loolee lépp nag mooy ak yar nga xam ne tey it moom la Cheikh Moussa yar ñu ci yoon bi suñu kilifa yi <clears throat> yar ñu ci it kon ñun waru ñoo wàcc yooyee waru ñoo wàcc valeur yooyu war nañu respecter valeur yi respecter cëri xam ne moo tax ñu doon li ñu doon damaan kenn doon woon dara xamuñu woon dara waaye keroog nag bañ suñ borom boole ñu kilifa yi ci lañ xam bay jàng ngir xàmmee ngir am ak ak ràññee kon loolee nag ay valeur la yoo xam ne yombul kon bu ñu amee lu yombul nañ ko fonk fonk goo xam ne day romb sax nañ fonkee suñu bopp kon mën nañ ne pays bi de laajul dara ci ak Baay Faal lu dul mu fonk diini ak islaam ak mboolem lu ci aajoo islaam téqaliwul dara yàlla daa dajale lépp ci boppam waaye teewul nag da leen noot ci boppam dëxëñ leen ci boppam ngir rek ñu jaamu ko rek moo tax mu ne wa maa xalaqtul ins wa jinni illaa li yaabudu bindu mu noon nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko kon ñun suñu dund gi mënul am sens lu dul dañoo jaamu suñu borom di ko sant fu ñu ne fu nekk fu nekk nag waaw kon ñu bëgg yaatal nii rek ñu jox Ahmadu moom it mu barkeelu ci xasida yi ku tedd ki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 يلا بالمصطفى سنديد يلا وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك موسى صالح قدر وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وسكريا يحيى هدى يا الله haruna yo joyli asim adamada wuda wasil kibli saluto yalaw haruna yo suwa ilyasin wa adamada ودا وسلك فلي لوت يالله هارون يوسف إلياس وآدم دا ودا وسلك فلي لوت يالله ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يالله وبالملائكة ترا ثم صفتهم جبريل ثم بميكائيل يالله وصاحب النفع إسرافيل خابد أر العلائق علائق عسرائيل يالله وصاحب النفع إسرافيل خابد أر الخلائق خلائق عسرائيل يالله يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع السفي مسيب العتاب سيدنا محمد خير الوراء من خادني خدمته وسورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له الأقلام سيدنا سفيعنا المقدم عند الذي تسكو لدي الخدم محمد وسلتي وجنتي عن الأحادي والأسى وجنتي والي وسهبي الأبرار في الحال والمال بالتقرار والآلي وسهبي الأبرار في الحال والمال بالتقرار هذا وحسدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من سلام خدمة تسر مصفعا به كفيت ما عسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني سدما أحمد على خروج من دار وكل سوء وهناء وحرار أشكره وخاد للأبدال كما كفاني خرب والجدال محمد وسيلتي وجنتي عن الأحادي وأزا وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بتقرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من زلام خدمة تسر مصفعا به كفيت ماسر قد رمت من رب البر الورى يا خدمة لمن بجاه كفاني سدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وخناء وخرر أشكره شكرا يجر سيدا بسري ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا ربي الورى وساسا خرورا فخمت ناسما لسي المخدمة مسليا بها على من خدم مرتجيا كوني خديما لسنا وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا بمالكي أن ينفع بها التي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا نظما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا لب الجام من أمرك تدي am جام tudd yàlla jàmm yàlla moo kon ñun mooy fi ma daanalee noone di delluwaat di santaat góor yàlla yëpp di santaat it mbokk bopp yi mbokk askan yi fi teew ak ñu ngi sant ñëpp ak fu ci waaye mën a baw ak coono yeeg yëpp di leen masaw di leen dalal jàmm it di leen ñaan la ay tawféex yàlla fay leen ay yiw yi dox waaw nag sant nañ bu baax ndax lii de yombul mooy am nañ ay valeur ci ñoom te ku ko deful ci yow ku ne rek koo koy romb la raw la kon loolu nag ak liggéey la boo xam ne njaboot gi war nañ cee góorgóorlu bu wér sax surtout ma bi war nañ cee góorgóorlu bu baax comme ni ko sëriñ bi di waxee saasu su ne te xam ne lii ñuy ñu yor nii di ko liggéey di ko dund engagement bu yaatu la waaye lépp nag ni ma koy waxee saasu ne génnul diine génnul islaam ñuy dellu di santaat sëriñ bi dinaan ne dellu nañu jàngalaat ci ak taalibe topp ci ak doylu nit keeg sëriñam kon it chabalo dañ koy sant bu wér nga ñaanal it mu yàgg fi ànd fi wér wér wér ak njaboot gi yépp barki bàyyi moo mu sawa ndax saa su ne maam mu ñuy soññ ci bëgg yàlla ak topp ko ak wattu taxawaay loolu nag boo ko amee mooy ni ma koy waxee rek nañ yokk góorgóorlu nañ yokk góorgóorlu ci barki sëriñ bi te xam ne foofu jaam waa ñu ngi sant bu baax mënuñ cee sori ci ay kàddu ndax maanaam dañoo sant daal dañoo santu lool sax waaw ñoo sant lool waaye nag mun woon ñàkk comme ndigal la fokk ñu barkeelu ci waaye nag lu ci ëpp doole daal ñun sant nañ sant nañ bu wér a wér sëriñ yi ngeen yàgg fi ànd ak wér ak njaboot gi yëpp fi ak fañ jëm barki borom daal. xanaa wax ni su ko xari doon jar danaa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.